Jene get sen sen, Rumi Venkat TV. jaajëfal nañu leen bu baax ci àddu bi ak topp bi nga xamante ne rek dañu koy topp ci site internet bi di réew mi 24 TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu wutali diwaan bu cees ki nga xamante ne daal moom mooy Birame Souleye Diop mi nekk ab ministre nag ki ko fa wuutu jamono ji ca bopp maire bu cees du kenn ku dul Mohamed Diakité moom jamono ji nag mën nañoo wax ne rek mooy maire commune Thiès Nord ba tey ci wàllum xibaar Jeune République yu Touba yi nag fas yéene nañ rek bare route ki nga xamante ne moom mooy président de la bi nga xamantene rek euh, mom lañu jaglé journée nationale de l'arbre dinañ nak soxla wuñ ben yoon téway président de la république euh, fofu ca diwan bu touba ndax gis na nak ñi nga xamantene rek ñom la faalé nak ñi ngi ci fanen ñom nenañ nak dinañ fasiyene rek baré yoon bi ki président de la république di Bassirou Diomaye jaxer fay ba tay rek ci walum bu ñu joggé ko fofu nak dañu daldi addu rek wax ci kat bi nga xamantene ilimanu jëwnin bu ñëk bi nak di Ousmane Sonko daldi nakoy wax nek tay ci ci samedi yema ak ñetti fan ci wéru août ci atum 2024 ginnaw bi ñu doon amal nak li di journée nationale de l'art bobu nga xamantene dañ ko lancer ci commune bu Padoua ak yenen yi nga xamantene rek jamono ji ñang fay door liggéey ba ginnaw ñenti weer yi nga xamantene rek tok nañ ko ci bop nguur gi coalition tandem jomay nak dañu daal di jël dogal lek ngir daal di dakkal lépp loo xamante ne rek tek tekkaaral la ci situation yu nu mel ba tey rek ci walum xibaar walum sécurité ak kaaraange gu mat sëkk nag la jëwnu bu ñu denk kaaraange bi teew mi daal di annoncé moom général Jean Baptiste artiste Tine nag ne daal euh, fas nañ yéen rek amal ay caméra yoo xamante rek kenn ku ci nekk da lay surveiller ci wàllum professionnalisme bu defee rek muy càmbar yoon yi ba noppi garantir lépp loo xamante rek transparence la ba ci wàllum xibaar bu ñu jógee foofu dañuy àddu rek wax ci ki nga xamante ne moom mooy sëñ Xaadim Bamba Fall mi nga xamante ne daal vrai stratège la ginnaaw bu mu wanee nag ci cours de communication ngir atteindre nag objectif am ñi gisee rek projet nag amul benn yoon TV la mu dal di xamle woon moo dina nag ginnaaw bu mu wanee nataalu kii di Jomaay ak ki nga xamante ne rek moom mooy Ousmane Sonko a ko sénégalais yi beneen ba ca topp nag mu wane ñaari xar-xaram yoo xamante ne rek daal nañu feeñ ci télévision sénégalais bi mu daal di jox raison publiquement Pastef mi nga xamante ne rek daanaka jeexal na ay invitation ci yenn ci télévision yi bu muy jógee ko ca plateau bi nag li nga xamante ne daal moom lañ fa jot a décortiquer moo di ne boobule projet daal dinay am ab contenu jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné ihtiyaç duyan 20 lira nihibar.